agsee ci ñu liggéey ba fal président Bassirou Diomaye Diakhar fay président de la République ci coobareem mu tànn kii di président wu Pastef Ousmane Sonko euh, def ko premier ministre mu tabb gouvernement def ci ay ministre nommé ay directeurs généraux ñuy doxal di doxal ba am tey loo xam ne war na am ci assemblée bi jóge ci exécutif bi muy loo xam ne charte réew mi moo ko fàggu ci wareef bu tegu ci ndodd ki jiite gouvernement bi muy premier ministre di Ousmane Sonko yoon muy charte réew mi article cinquante cinq de la constitution ne ko buñ la tabbee premier ministre ba noppi war ngaa jël say jëmtuwaay dem ca péncum ndaw réew ma ca assemblée ba bëral fa say mëbét say pexe ak sa liggéey boo nar liggéey ci gouvernement bi ngir jëme fa réew mi boo ko fa defee ba noppi ci kanamu député yi nga bu la soobee bu la soobee nga sàkku ci député yi gannaaw ba nga leen waxee sa bët ci réew mi fi nga jëm ak ñoom nga sàkku ci ñoom bu la soobee bu la neexee nga def ko bu la neexee nga bañ koo def sàkku ci ñoom bu neexee comme bu la neexee nga bañ koo def ci ñu wax la ndax li nga leen bërël waxal leen ko discours ba nga fa def ci fi nga jëme réew mi ndax ñoom dal na seen xel wala dalul seen xel bu fekkente ne dal na seen xel ñuy vote wax ne dal na seen xel nga am ndam bu fekkee dalul seen xel wala wóoluwuñu li nga leen wax mën nañoo vote tamit ne ànduñu ci li nga wax d' d'accorduñ ci bu fekkante ne ñi ëpp ci ñuy vote dañoo xarab sa gisinu réew mi ni ko bëgg a doxalee su boobaa gouvernement bi day daanu premier ministre bi day daanu président de la république jël beneen xët beneen décret nommé waat premier ministre ñun taxawal ak gouvernement bu bees motion de censure waaye loolu balaa am day fekk kon premier ministre dem ca assemblée ba bëral fa li nga xam ne mooy mébétam mooy déclaration de politique générale di mébét

constitution bi moo ko faggu sant ko premier ministre bi pour mu dem ci assemblée ba wax fa ay mébétam ci déclaration de politique générale waaye waxu ko àpp joxu ko àpp waxu ko nañ koy defee duggul ci détails yi moom constitution bi loolu dong la ko wax yam ci kon loolu bu naree am ci assemblée bi nga xam ne pouvoir boppam la yore ndax député yi dañ leen di fal comme ni ñu falee président assemblée bi tamit dafa am nu muy doxee kër goo dem dafa constitution bi joxoñ premier demal assemblée ba wax fa say déclaration de politique générale na ci assemblée ba constitution bi wax ko ko assemblée nationale bi nga xam ne moom këram wax suñu kër fi dugg ngay ngay ngay la député bi règlement intérieur de l'assemblée nationale loi la loi organique de surcroît loi rawatina loi organique mu suufee mu constitution moo ko féete kaw ci doole gannaaw constitution bi nekk nag loi organique yi ñooy ñëw ci wàllu doole mooy règlement intérieur u assemblée nationale bi wax assemblée bi nu muy doxee ci biir réglement wu député assemblée yooyu dafa am ay jafe-jafe yu ci am président wala boog premier ministre Ousmane Sonko dem ci assemblée bi loolu wareef la moom mënu koo soppi mënut a dem feneen dégg naa ko nag démb ci li mu bind ci page mu wax jafe-jafe yi am ci assemblée bi yëpp jafe-jafe yi am ci règlement intérieur assemblée bi ak njuuj njaaj gi ci am ak tappale yi ci yu benn bokk yaakaar ñoom Adji Sarr ki Macky Sall li ñu ci def tappale yëpp président Ousmane Sonko di premier ministre li mu ci wax yëpp am na dara kenn du ko weddi li mu wax lépp am. bu ngeen demee ci page am liir ñëpp gis ngeen ko lam fa bind yëpp di tontu Guy Marius Sagna ci lim ko ne bul ñëw ci assemblée bi mu di ko tontu di joxe ay lay lay yim joxe yëpp kenn mënu koo dindi ce des arguments de droit lu yoon taxawal la moom premier ministre Ousmane Sonko sukkandiku ci yoon layal li tax mu ne du dem ci assemblée ba donte constitution bi moo ko ko sant par force mu war faa dem ci article cinquante cinq waaye nee moom du fa dem tant que li nga xam ne moo manqué ci wàllu loi organique bi nga xam ne moo tënk assemblée nationale war a wax ku ne boo fa demee noo fay demee noo fay toogee nooy waxee député bi yooyu yëpp na muy fonctionner ci biir règlement boobu dafa am ay jafe-jafe ay njuuj njaaj yu ci am ay tappale yoo xam ne dañ ko war a leeral defar ko ba mu ne cocc moom premier ministre soogi dem sooga fay dem loolu la wax wax na dëgg wax na dëgg suñ ko mënee partagé ñu partage ko parce que live bi du yàgg waaye ca njeexitalu ay layam moom premier ministre ne du dem ca assemblée ba ca njeexital ma da caa da koo tëjee loo xam ne man ànduma ak moom ci loolu ànduma ci mooy fi muy tëjee aw wax ay xëtam ci wax daa di jox ab app assemblée bi ne leen fii ak 15 juillet bu ngeen jooyantiwul jubbantiwul njuuj njaaj bi ci assemblée beeg seen règlement intérieur yi suñu àggee ci app boobu te defu leen ko danaa jël dogal li nga xam ne constitution bi moo ma njett sant ma ko ma war koo def par force te mooy bëral sama mëbët ci fi ma jëlee ci fi ma jëmee réew mi en tant que njiitu gouvernement bi muy déclaration de politique générale nga xam ne dama ko war a def par force constitution bi ma ci loolu comme fa laa ko war a defee ci yéen te yéen dangeen di njuuj njaaj li ngeen war a jubbanti defu leen ko fii ba le 15 juillet bu sottiwul danaa ko def waaye du ma ko defee foofu bërëb sàngam laa koy defee ci kanamu diw ak diw ak diw ak diw ak diw ak diw foofu la président Ousmane Sonko jeexalee mbindam foofee laa àndul ak moom ca loole ànduma ci te dama koy layal moom laa bëgg moom laa àndal moom laa mas di xeexal moom laay jàppale moom laa bëgg mu am waye luma and mom ak mom and ak mom mom, ak mom mom ak mom damay and ak mom ci deug damay and ak mom ci principe damay and ak mom ci constance lañ doon xex demb mom la xex tay mom lay xex suba duma and mom ak mom mukk di ko mukk nit boko ko bëggee ko gëm ko dang koy wax deug dang koy jappalé ci deug bu parce que nit la Ousmane Sonko man na ju waye du def lu mu def rek ngeen na ngeen gongo man duma ci bokk sax sama nawle la te nit la am na yéene am na fit bëgg na Sénégal pare na pour sacrifier wu am na qualité yu bare bare bare waaye nag taxul mu mat ba jéggi nit loolu moo tax day soxla moom président Ousmane Sonko ay militants ay sympathisants ay ñu ànd ak moom bu ñu waree xeex ñu xeex bu ñu waree dee ñu dee ngir dëgg bu juumee moom mu am ci ginnaawam ñoo xam ne dinaa ko eh président wala premier ministre juum ok loolu la président Ousmane Sonko soxla waaye topp ci ginnaawam rek lu mu def ngeen ne gongo di di di waye ko fecc ko euh, euh, loolu du projet bi loolu du projet bi projet bi dëgg la projet bi jub jubal ak jubbanti la projet bi projet projet bi xam-xam la projet bi gëm institution yi la projet bi constitution bi la projet bi projet bi respecter institution yi institution l'exécutif le président Bassirou Diomaye la clé de voûte des institutions gouvernement bi institution Ousmane Sonko moko Ousmane Sonko c'est l'institution donc mom vous defé lo xamné république bi qui ci moom ci boppam dafay néewal boppam doole moo tax bëgguma moom président Ousmane Sonko premier ministre mu def loo xam ne dafay wuute ak yoon parce que su boobaa moom président Ousmane Sonko moom ci boppam day faible moom ci boppam day nësax moom ci boppam kilifteef gi mu yore doole gi mu yore day wàññiku ndax day ubbi bunt boo xam ne su boobaa moom dootul mën a yilif kenn moo tax bu jàddee rek mën ne ko teg waata ci kaw raay bi parce que man taxawaay boobu laa war a am ci wetam man ndax réew mi par parloo moo ko ba duñu waxante deug nit man na fa man mag mom ñoo far man dama xex bañu fal mag ñom ñoo and waye nak man président Ousmane Sonko demb premier ministre tay suy wax dama koy deglu diko deg te deglu ko ak deg motax ma ñawal sama xel ba diko ko ci lepp lu mi def bu teggo ci yoon ma défendre ko xex ci ba dee ci waye bu juumee ba tegg ci yoon manako ci yoon du ko bàyyi du ko tagg mukk ci ay erreur jamais li mu bindee démb bay daaneel ci la ne bu fekkante ne li nga xam ne dañu ko njuuj njaaj ci biir assemblée bi te muy dëgg gu wér péng ba tax mënu faa dem bëral fa ay kàddoom bu ñu ko jooyantiwul fii ak fukki at fii fukki fan juróom ci weer wi ñu dugg mois de juillet dana jël dogal moom président Ousmane Sonko def li mu war a def ci bërëb boo xam ne ña fay nekk ay universitaire lañu ki intellectuel société civile loolu premier ministre Ousmane Sonko amul pouvoir bi amu ko constitution joxu ko ko amul benn charte ci réew mi bu ko may loolu amu ko amul lu ma ko bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg lu ma bëgg bëgg projet bi projet bi ci raay saxaar guy daw ci mbooy amul saxaar ci kaw raay lay dox raay nag dañ koy tracé teg ko saxaar gi tegu ci kaw daw bu saxaar gi buy teg raay bi di taxaw saxaar du daw ci ganus ci raay lay daw man bëgguma Ousmane Sonko di juum ndax bu juumee damay sonn bëgguma muy def noo xam ne teguwul ci yoon parce que damay am gàcce duma ko mën a lay parce que damay xeex dama am ay noon yoo xam ne ñu ngi ci biti loolu motax bu defé lo xamné ne ci yoon rek man damay sonu parce que duma ko mëna lay duma mëna taxaw damay am nakar motax duma ko yërëm mom président Ousmane Sonko ci mu tegu ci yoon constamment parce que djub djubal djubanti lañu ñu té mom commandant la ci mi ngi ci kanam ñu top ci ginnaaw andu ak mom ngir buzz Andu ak mom pour diko xalamal ànduma ak moom ngi dara dama ànd ak moom gis na ku bëgg réew mi la ku jub la ku nangoo sonn ci réew mi la ku pare pour dee ci réew mi la loolu nag di ay valeurs yoo xam ne bariwul ci Sénégal ma yàgg koo topp lool sonn ci moom lool sonn googu ma sonn ci moom gëm gi ma gëm ak bëgg bi ma ko bëgg moo tax du ko yërëm ci li muy teg lépp lu mu teg dama koy natt ci li mu woote moom ndax méngoo naag loolu bu ci juumee de bonne fois mën na juum nit la juum gi muy juum du caaga ne day njuuj njaaj parce que Ousmane Sonko du njuuj njaaj xamul loolu waaye nag mën naa juum ci bonne fois mën na def loo xam ne mu jàpp na lii la fekk du loolu waaye du caage dafa am yéene def lu juba jubadi moo tax dafa war a am ñu nekk ci wetam constamment di xool li muy def bu juumee ñu ne ko président juum nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko yónnee si jaami daraan juum ndax day am jamono boo xam ne day wax ci bakkanam maanaam day wax en tant que nit am jamono boo xam ne day wax en tant que ku yàlla di wax yu donc dafa amoon une double dimension une dimension une dimension spirituelle doo xam ci jamono bu ci nek ci ban dimension la nek. bu nek ci dimension spirituelle jibril mo koy wax yu li mu wax nonu la bu fekkante na jibril wax yu ko muy wax en tant que nit da ngay gis leg leg mu wax lo xamne sahabatul kiram kiraam dañuy xam ne li yonent bi wax kat attention dañ ci am question diko joyante. ndegam Rasulullah lañ doon joyante wax du la ak Ousmane Sonko mais yéen da ngeen a bëgg a topp Ousmane Sonko lu mu wax ngeen tàccu c'est normal ñu bari ci yéen amuñu xam-xam pour mën a xam ndax Ousmane li muy def tegu na ci yoon ud ou pas c'est normal kon ngeen koy tàccu rek mais Ousmane warul nangu mbooloo mu amul xam-xam di ko tàccu saa su ne ba mu dugg ci mpax man su boobaa man damay nekk ci ñi sonn lool pour génne ko ci pax bi xobu garab bu wow di taxawaalu ba ngelaw ne ko càbb ci biir pax ngelaw la ko dugal ca pax ma génnewu ko ci dama bëgguma jël sama temps di ko di concentré pour génne Ousmane Sonko ci mpax li ma daj ci dossier mag Adji Sarr xam naa ko bëggatuma mu def benn erreur boo xam ne dama ciy daj lu ñu toll wala lu ko ëpp ndax amul jot réew mi dafa tardé dañ ko war a tabax xeex nañ ba réew maa ngi suñu loxo dañoo war a dérouler dox jël les euh, mesures yi ñu war a jël dogal yi ñu war a jël ñu jël ko ak fit taxaw avance réew mi yëpp ñun la àndal Sénégal gépp a ngi taxaw duñu amul lenn lu ñu lu ñu deful ñoo ko bëggut a def décision bu ñu jëlul ci ñoom la moom ak jomaay Sénégal gépp ñoom la ñuy déglu dégluwuñu kenn lu leen tër rek ci ñoom la seen coobare la sénégalais yi dese desalatuñ leen dara fu ñu joxoñ sénégalais yi jëm fa Ousmane Sonko ak Diomaye àdduna nag noonu lay doxee mbooloo moo gis da am ñuy soox am ñu làggi am ñu patt am ñu feebar am ñu wér am ay dof am ay boromi xel am ñu xam am ñu xamul c'est normal c'est c'est normal ndax man Ousmane bu amee gàcce damay am gàcce su amee ndam ma am ndam su amee gàcce ma am gàcce ah nit nag bu fekkee bu amee gàcce nga am gàcce da ba bu naree juum ba gàcce ñëw nga ne ko ah ah ah ah, ah dellu kaay bu ñu amandoo gàccee ma ak yow. Ousmane Sonko premier yow amul fenn fu mu mën a sukkandikoo wax jooju mu wax ca njeexital ma ne moom dana ko def muy benn déclaration de politique général populaire def ko ci mbedd def ko moo xam fu mu koy defee woo askan yi woo nit ñi woo diw ak diw ak diw ak diw loolu Ousmane Sonko amul ci sañ-sañ mënu ko def tegu ko fen te man du ma ànd ak nit buy jëf ci biir république loo xam ne amul cuslaay amul jur amul base légale amu ko loolu loolu du ma ci ànd damay yëg sama loxo ne d'accord ma waaw on est constant dans on est constant ci xex bi ñuy xex ci deug djub djubal dañuy jaamu yalla ñun li def qui jaamu yalla, la dañuy jaamu Yalla ci def jaamu ci variable selon les circonstances jamono bu nek rek ak nga xol principe ngay am taxaw article 55 de la constitution mo teunk Ousmane Sonko teunk Bassirou Fay, ma président Ousmane Sonko premier ministre déclaration de politique générale am ci assemblée bi la koy defee amul fenn fu mu ko defee foofu la koy defee te mënu ko def feneen foofu kese la ko mën a defee te noonu lay demee aussi amul fenn fu mu ko mën def loolu dafa war a leer ci dafa war a leer ci noppi patriote yëpp dafa war a leer ci noppi patriote yëpp na ko ñëpp xamee noonu dama bëgg mu leer loolu laa bëgg njëkk a leeral ngeen génn ci réseau yi bari bay bëgg a dee ku nekk di wax parax parax parax ooy tagg Ousmane tout ça c'est très bien il faut ngeen xam ne nekkatuñu ci opposition ñi ngi ci pouvoir bi premier ministre bi moy, Ousmane Sonko président bi mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye mais ñi ëpp ci train de ngeen comporter comme di comporter wu comme ñu que ci opposition parce que loolu ngeen xam xamu le pouvoir mais bu leen neexee yéen mais président Ousmane Sonko ak premier ministre Ousmane Sonko président Bassirou Diomaye Faye ñoom ñi ngi ci biir pouvoir ils sont

bu ñu bëggee dimbali président Diomaye dimbali premier ministre Ousmane Sonko nañu wàññi suñu yenn comportement yi nañuy xool li nga xam ne moom méngoo ak yoon ak charte réew mi assemblée ba la fa nekk dara baaxu ci. assemblée ba ay tappalee fa nekk assemblée bi ay gangstère fa nekk assemblée bi ay wëyyoo fa nekk loolu yàgg naa ko wax du tey wax naa ko ba tàyyi xam ngeen ko yéen ñëpp loolu moom tey dañoo agsi ci war koo wax waaye waxoon nañ ko Euh, député Mamadou Lamine Diallo wax na ci Guy Marius Sagna entrepreneur loolu wax nañ ci ça fait deux ans donc du lu bees ñoom Macky Sall njuuj njaaj gis nañ fi ay faux décret gis nañ fi ay nomination nit ñu dee ñu nommé leen gis nañ fi ñu ñu libéré ñoo xam ne gis nañ fi Macky Sall c'est un c'est le régime de Macky Sall est un régime de faussaire loolu moom wax nañ ko ba tey donc li xew tey du lu bees kon ñëpp d'accord nañ ni am na ay tolof tolof ci biir assemblée bi le premier ministre Ousmane Sonko wax na dëgg ne man duma dem ci assemblée boo xam ne lii ak lii ak lii matul jubbanti leen ko méngoo ak yoon parce que principe bi Ousmane Sonko taxawee bëgg assemblée defaraat règlement intérieur am ba mu méngoo ak li nga xam ne moom la charte réew mi wax mu fay soog a mën a dem loolu principe de droit la Ousmane Sonko posture boobu c'est une posture républicaine. ndax daf ne assemblée def leen lii ak lii ak lii ak lii loolu muy laaj assemblée bi def ko moom Ousmane moo leen koy sàkku ci ñoom yoonu réew mi ko bëgg Ousmane di défendre yoonu réew mi ngir assemblée bi def liggéeyam conformément aux dispositions légales et réglementaires loolu mooy république loolu mooy état Ousmane loolu mooy rëlam muy wax assemblée bi ñu def seen wareef kii wax loolu moom Ousmane Sonko premier ministre mënta wax assemblée mu def wareefam ba noppi moom premier ministre mu bëgg a ñëw def loo xam ne méngoowul ak yoon. dafa am lu tanaakute dafa am contradiction loolu mënut a nekk mënoon a yéen teguwu leen ci yoon ba noppi yow mi leen di wax loolu nga bëgg a jalgati yoon yow mënut a nekk kon lim leen di wax assemblée bi corriger leen defaraat leen loolu maag moom ñoo ci ànd loolu dama ne ko gonga wax nga dëgg loolu mooy sa taxawaay man président euh, premier Ousmane Sonko man loolu dama la ciy jàppale bul dem ci assemblée bi tànk li ñu war a def defuñu ko bu fa dem. d'accord naa bul dem parce que loolu yoon may na la ko li tax yoon may na la ko mooy constitution bi la wax ne la demal defi sa déclaration politique général assemblée waxu la ban date nga fay dem joxu la délai waxu ci 3 mois yi nga koy def waxu la ci 4 mois waxula ci 5 mois joxu benn délai kon am nga sañ-sañu premier ministre toog ba saa su la neexee nga dem lu tax ndax. règlement intérieur assemblée nationale mo fixé won délai bi nga xam premier ministre bi ci la wara def déclaration de politique générale muy 3 mois buñ ko falé ci 3 mois war nako def lolu règlement intérieur assemblée moko ko won waye waaye da koo faxas dindi ko nekkatu fa léegi nag bu fa nekul nak nekkatu fa ndax ñoom ci seen i njuuj duggal fi fii génn ah, règlement bi règlement bële njuuj njaaj njuuj njaaj yoy ñu doon njuuj njaaj ji buki bukki suuli ba fa suulu laxasu ñoom lañ doon tapalé ci nguurug Macky mo len leen dab tay ca règlement intérieur assemblée bi fa nek poste premier ministre amu fa déclaration de politique générale amu fa motion de censure amu fa kon premier ministre num fa yoti mu len nak nag bu ngeen bëggee ma ñew da ngeen di ba délo si sama ay prérogative yo xam wala bok lo xam dafa lambok sama primature gi ngeen délo si ko ci règlement intérieur bi ma soog mëna ñew lolu ñëw wax na dëgg Ousmane wax na dëgg waaye mënoo def loolu ba noppi nag yow yow premier ministre Ousmane Sonko wax sa dëgg ba noppi nag yàq ko ci ne bu ngeen ko deful dama koy yóbbu toxal ko def ko fee woo diw ak diw ak diw ak Ousmane déedéet loolu yoon mayu la ko dëgg dëgg rek la ki bu amee dëgg jox ko ko bu juumee ne ko da ngaa bu ñàkkee dëgg xañ ko ko ak loo ko bëgg bëgg bëgg lu mu la jege jege jege jege dëgg yàlla moo ko moom dëgg yàlla moo ko moom prémisse su ko neexee tok ne dama dem def déclaration générale parce que li wara dajé ci assemblée bi dajewul loolu am na ki droit assemblée bi ñu ne ko nga ñew ñom wa assemblée nationale amuñu fu mëna mën pour forcer Ousmane Sonko mu ñew amuñu ko amuñu ko. assemblée bi amuñu fu ñu mën a tënku pour ne ko da ñëw def sa DPG par force amul bu dee constitution bi d'accord wax na ko waaye kañ la ko war a def waxu ko app bi règlement intérieur u assemblée moo ko daan fixé faxas nañ ko ci nekkatu ci kon ñoom koo forcer mu ñëw tey suba gannaaw suba su ko neexee mu toog ba 2029 su fekkee mooy nekk premier ministre ba 2029 mu soog koy def kenn du ko forcer loolu moom dama ko ci jàppale te wax na dëgg waaye waaye ne fee laa koy defee du ma ko defee ci kanamu Sénégalais yi ak universitaires yi ak de yi déedéet le premier ministre loolu amul benn charte réew bu la ko may te am réew na boo bokkee ci njiit yi si gën a kawe yow mi jiitu ci kaw gis nga président Diomaye mooy kii war a njëkk a tënku ci charte réew bi ndax bu ko bu ki tënkuwul rek man du ma ki tënku kenn du ki tënku premier ministre Ousmane Sonko moom dafa war a góorgóorlu gis nga fal fal nit mooy tënk ko nit bu ñu la falee tënk nañ la li lay tënk mooy charte réew mi lay tënk Diomaye mënatul lu bari Ousmane mënatul lu bari ndax ñoom charte réew mi da leen tënk pour que ñoom tamit ñu mën a faggu charte réew mi tënk askan wi tënk sénégalais yi ñoom bu ñu tënkikoo ci charte réew mi rek ñun ñëpp dañu tënk ko te su boobaa ba day am donc ñoom ñoo gën a am intérêt tënku ci charte réew mi ngir man ak yow mi may déglu ñu mën cee tënku mais ñu nekk ci kaw buñ ci tënkuwul kenn du ci tënku loolu motax tax c'est dangereux nga nek ci bop rew di galgati yoon c'est dangereux Macky Sall mi ko defone gis ngeen ni mu rew réew mi réew mi yëpp tàkk xeex bëgg nit nag ba lu mu wax nga jëm ko layal jëm ko justifier jëm ko layam layamel di ko tourner ba dugal ko ci loo xam ne bu ca duggee yow mi ko doon tàccoo ko layam lay mënoo ko ci dindi du xam-xam ngay wax ci passion di wax ci yëg-yëg ak wax ci bëgg ci cofeel mais doo wax ci xam-xam yow ëllëg lu dal Ousmane Sonko ci musiba yaa ko ci dugal ndax yaa ko daan jay daawoo ko dimbali ndax lu ñëw nga jëm ko ko layal Ousmane boo ko bëggee danga koy boo ko bëggee danga koy wax dëgg muy moytu di moytu waye lum def rek nga jëm ko layal lum def nga jëm ko layal tek ko ci bëgg ak ciofel koku bis bu musiba ñëwé fo jëm ak mom nañu soppi ay doxalin nañu xippi suñu bëtt sakku ji xam-xam ut fit jël li ñuy and ak président Ousmane Jamaay ak premier ministre Ousmane Sonko muy projet bi ñu xam jaamu yalla la di ci def deug di ci wax di ci andando di ci nasante beugante andando ci deug mais pa ci naxante ki tapale lolu baxul kon jafé jafé amna premis premier ministre mi ngi ci droit am dem parce que li wara a daje dajewul assemblée nationale ñoom ñoo wara a dajaloo joyanti la fa manqué mais ki ko jiite Macky Sall moo ko fa teg mu bokk ci parti Macky Sall ñi président bi na mu ko fal nañ ko falee gis ngeen ko ay gendarme fal ci forcé

ñoom député yépp nga fa woon ñu né ñom débat d'orientation budgétaire bi nga xam ne mooy xët bu njëkk ci budget bi ñu wara a ubbi budget bi ñu xol ba xam fu mu jëm ak nu ñu ko nase ñoo nañ ci waxtaan tay président assemblée bi ak bureau assemblée bi ñu né duñ ci wax daal di koy dakk ñu tax Ousmane Sonko de leen respecté wul premier ministre jox leen seen cër au nom du principe de la séparation des pouvoirs ni ngi ñuy lég laag ñoom it ñu braqué wu ñoom it ne sax débat du am légui session bi tejna débat débat d'orientation budgétaire bi amul

un peu xam-xam avant budget bi budget octobre lay ñew ci loi organique la loi organique relative donc à la loi des finances le budget donc tay ji am nga loi débat d'orientation budgétaire ko opposition majorité ci assemblée bi di y a une crise institutionnelle maxal avant mu crise ñu ne ko ban crise moo am dafa am crise entre l'Assemblée nationale et le conseil constitutionnel Macky Sall moom crise boobu la fi bàyyi woon ne booboo am ba nar cee dàq élection yi ci ay tappale la ca xam ko ñu am gouvernement bu bees président bu bees waa kër Macky Sall yi Macky Sall ba créé woon crise bu ñëk ba ci élection yi entre conseil constitutionnel assemblée Macky Sall bobu demul de Macky Sall tay ji mo créé wat crise bi may wax ni entre assemblée bi ak exécutif Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ñoom ñooy jaakaarloo ak Macky Sall ci assemblée nationale ba Amadou Mame Diop Macky Sall moo ko fa teg Benno Bokk Yaakaar li mu def tey daf ko démb li Abdou Mbow wax yépp Macky Sall moo leen di dicté li ñuy wax problème bi du Amadou Mame Diop du Abdou Mbow de Bassirou Diomaye Diakhar fay président ak premier ministre Ousmane Sonko seen deuxième tour ak Macky Sall moom la ñuy assister nii li xew nii deuxième tour la entre makki sàll ak Diomaye ak Sonko parce que ñoom ñaar ñooñu. ba bañ woo koy jàpp Macky Sall tap ko ba mu ne code yóbbu ko rëbës defuñu ko dañoo jël avion jox ko ko jox ko xaalis jox ko ay garde du corps bàyyi ko mu wër àdduna bi dem fu ko neex delloo leen avion la ñu waxante ñoom ñoo ko xam ba Macky Sall tey yàpp ñu yàpp gu toll ne muy créer beneen crise ci biir réew mi di pamti pamte Ousmane Sonko ak Diomaye ñoom ñu ñoom ñu nangu ko di layam layam mi toog di xaar waroon a dàq nitu Macky Sall yi dàq ñu leen war a wàcce ñëpp fal ñi ñu àndal. boobu ba léegi ñu tëj seen téléphone yi waxuñu kenn kenn xamul fu fuñ jëm Ousmane Sonko ak Diomaye kenn xamul lu ñu bëgg ak fuñ jëm Macky Sall toog ca assemblée ba dañuy pamti pamte mu mel na ñun amuñu fit mënuñoo yor état mu mel na amuñu projet mu mel na amuñu ay nit mu mel na amuñu mais ñun ñun ñun mais ñun mais quatre cinquante quatre pour cent yi ko jëlee amuñu ay mbooloo ñun lan lañuy xaar pour teggi ñi tas assemblée bi def élection yu bees je ne comprends pas dañ leen waxante dëgg na ngeen waxante dëgg te bàyyi naxante bi Macky Sall bu ñu yabee ci suñu doxin la du Amadou Mame Diop de Amadou Mame Diop xàmmeewul ndeyjoor ak càmmooñam xamul lu mu tudd xamul dara Abdou mbaw du ma leen ko jàngal li xew ci assemblée bi Macky Sall la mooy xeex ak Sonko ak Jomaay parce que xawma lu mu fu mu jaar ak ñoom xawma mais bu Sonko ak Jomaay dafa mel ne Macky daf leen a tënk. da leen di xool da ngaa ñii est-ce que amul fu leen Macky téye c'est incroyable li xew ci réew mi Sénégal a ngi coow ci suuf nag maa xamal leen ko moo tax ngeen gëj maa dégg man dama ne woon du ci wax dégg naa ki lu ne man du ma ci wax mais wax ay indi wax Sénégal gépp a ngi laaj lan moo xew Ousmane Sonko ak Diomaye lañ leen séq ak ki sàll senegal gépp ñu koy laaj parce que lii kenn xamul lu mu doon ba Macky Sall jóg

c'est incroyable lu des dégâts. waxante dëgg dañu waxante dëgg ay Abdoulaye Daouda Diallo conseil économique social environnemental lu fait fay def lan la fay def institution bi mënoo parce que il faut nga majorité assemblée pour tas ko c'est mais président bi décret moo ko fa Abdoulaye Daouda Diallo Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ñoo ko signé décret le 5 juin pour convoquer le le le le les élus les conseillers xaw lan pour que ñu mëna réunir barke demb gis ngeen Daouda Diallo ñom ñëpp ñu ñew ñu takal leen seen xap ñom ñoom Fou Malade yëpp ñu manam ñi Macky Sall nommé won dem ba leen fi Bassirou Diomaye Faye mo signé décret bi Ousmane Sonko contre signé ko pour convoquer ñoñu et convoquer leen ko Abdoulaye Daouda Diallo pour Abdoulaye Daouda Diallo takal leen ay xap mu mel ne réew mi changé wul quoi Bassirou Diomaye Faye du jël décret dàq Abdoulaye Daouda Diallo ki saa si wàcc ko même boo fa namé wul kenn mu remplacer ko poste bi na vacant poste président bi damay dàq Daouda Diallo poste bi du am parce que institution yi amul njëriñ ñom dañ dañ koy supprimer guñ ko supprimer parce que il faut ko ñu am majorité à l'Assemblée. mais en attendant ngay am majorité à l'Assemblée. je prends des mesures conservatoires et de sauvegarde damay dàq président bi Daouda yalla dama koy wàcce par décret.

ñooñu ay nit Macky Sall lañ jëlal décret nga wàcce ko soo ko mun mënta remplacer nga bàyyi poste bi mu vacant parce que ñooñu am Aminata Mbengue Ndiaye ak Abdoulaye Daouda Diallo am nañu chaque fin du mois kenn ku ci nekk sa salaire yu dix millions xaw ma quinze millions am ñaari oto yor budget ay milliards waaye dañoo am ñoom ñaar ñooñu kenn ku ci nekk am nga caisse noire boo xam ne dañ la koy jox chaque fin mois lu mu dee dee dee mat na vingt cinq xaw ma trente ñaar kenn ku ci nekk. Diomaye bàyyi leen ko ak Sonko ñu jël 30 millions fonds politiques, caisse noire que en tant que président de l'institution. Nous avons ko 30 millions ko PS ko benn de nous campagne campagne, ñun dañu Bassirou Ousmane Sonko ci caisse noire chaque fin de mois 30 millions yu salaire de 10 15 millions ñu de fa te fait rek caisse, la amu

ñoo fi nekk tey ak yéen aussi ànd di xeex léegi ñoom ñooñu ñooy toog di complot di nasaka noo ci ànd ak Macky Sall xanaa nit bu la defalee teraanga boobu bu la jomaay bàyyee foofu yéen jomaay bàyyi leen foofu mais ngeen war a am kersa sax na ñii kat moon nañ ñoo dàq li ak ba ñu ñu des mais ay nit yo xamne ay lañ teranga ngeen nek fi di les républicains les gens civilisés oui nous on est le président de tous les sénégalais arrêtez ça vous n'êtes pas le président de tous les sénégalais parce que tous les sénégalais n'ont pas voté pour vous dafa am ñu ba sacrifier pour c'était pas tous les sénégalais c'était une catégorie des sénégalais bu ngeen bëggee jël ñooñu nag yemale leen nag ñi leen doon xeex démb wàcc ngeen seen ànd te ku wàcc sa ànd ànd jàmbur boo dem fekk fa jàmbur gis naa ay yenn posture yu bees on est des républicains on n'est pas là pour tel parti ou tel parti loolu c'est du toc c'est du faux su ngeen ko defee ñi leen faloon ñooy wëlbatiku xeex leen parce que am na jamono benn catégorie Sénégal moo ànd ak yéen qu'il pleuve qu'il neige bu ngeen ñëwee tey ba bëgg leen a yemaleeg ñëpp ci ay posture républicaine oui il faut être républicain mais nit du fàtte fal de hein. nit du Nous fal attention rawatina ay poste républicain yo ñi ngeen koy jaay muy ñi fi yak mi ak ay bandi devant ces vaillants. là la preuve ñam ñi ngi xey guddeeg Ils di nas pour yak sen pouvoir dañ koy yak dañuy dal ci sen dañuy su di mais nii ngeen di doxalee ñun duñu leen jàppale ah dañ leen di seetaan ak ñoom parce que li ngeen di def xamuñu ko xamuñu fu ngeen jëm li yéen a ngeen ne patt tëj seen i téléphone waxu leen ak wu leen dara réew maa ngi ci loxo Macky Sall ba léegi ci assemblée bi mi ngi ci loxo Macky Sall ci exécutif ngi ci loxo Macky Sall Macky li moo Macky Sall moo leen ëpp doole ci biir réew lan dañoo fal Diomaye pour lan dañoo fal Ousmane Sonko pour lan fal gouvernement pour lan pour lan ba léegi Macky Sall moo fi nekk di buuma ko buumi ñu ne kenn du ko wax damay laaj ñun dañu am légitimité pour wax dañoo am sañ-sañu wax parce que wuñu dañu xeex dañu gëm projet bi dañ koy accompagner parce que dañu bëgg Sénégal dañu gëm Sénégal suñu waxu démb mooy suñu waxu tey suñu gëm-gëmu démb mooy suñu dañu am légitimité dañu am sañ-sañu yëkkatu suñu làmmiñ di wax parce que ba ñuy wut dañoo taxawoon di xeex pour li am tey ngeen falu

sama live bii mooy sama avertissement Macky ngi teg ay ndëgg sa mi ngi teg ay piège mi ngi saboté di galgal assemblée nationale bi tey bloqué nañ ko bloqué nañ ko ñoom ñoo ko bloqué toog yamuñu ci de yamuñu ci Macky Sall moo leen woo ne leen def leen projet de proposition de loi boo xam ne mooy ñëw modifier l'article 86 comme 87 de la constitution bi nga xam président de la république après deux ans de la nouvelle assemblée élue mu am possibilité man koo tas Macky ko defoon ci constitution bi de Macky Sall Je ko fi moo ko fi defoon de ba mu ba mu fi nekk moo ko defoon président moom sax Je projet de loi pour que mu mën a tas assemblée bi saa su ko neexee sans mu xaar deux ans yi Macky Sall ba mu ko yóbboo assemblée député bi ci boppam ñoo ko lànk ne ko duñu la jox yat boo xam ne moom nga ñuy ngàddee duñu la jox paaka boo ñuy rendee ñu voté la loi boo xam ne day soppi disposition bi nga xam ne moo ne assemblée bi bu ñu koy soog fa fal mënuñu koo tas tànk amul ñaari at mu dee dee dee dee Macky Sall na loolu nañ ko ko dàqal mu mën koo tas saa su ko neexee yéen député Benno Bokk Yaakaar Adji Sarr yi ngeen lànk ba booba Macky fi nekk léegi Macky nekku fi Diomaye fi nekk ak Sonko ñoom Macky Sall na fii ba lundi semaine prochaine ñoo am groupe Benno Bokk Yaakaar daañu ànd ak groupe xalifis yi taxawu Sénégal daañu ànd ak waa PUR daañu ànd ak waa Yewwi Askan ñu ànd ak ñoom les non inscrits ñoom ñëpp ña nga ànd def bloc. daa ñu ànd dugal ab proposition de loi boo xam ne dafay soppi article 86 xaw ma 87 bii wax ne président Bassirou Diomaye Faye mën naa tas assemblée bi su amee ñaari at gannaaw bañ ko fale nee nañ loolu lañ bëgg mu dañ ba nga xam ne léegi ñoom assemblée bi kenn mënu koo tas day continuer dox ba am 5 ans ñoom nee nañ daañu ko def semaine prochaine Macky la fa jaar comme Macky làmb na mu nooy ci Sonko Diomaye ñoom ay républicain la ñuy jaay ñoom xam nga voilà gëmuñu ñu leen doon jàppale duñ leen faale duñ wax ak ñoom toppatoo wuñ leen ñoom xam nga ñoom ay républicain la ñu amuñu parti politique amuñu ay militant sénégalais yëpp a yem ci ñoom ñoom loolu ñoom loolu la ñuy woote na ñii damay politique ak ñoom dàq dama leen di daaneel dama leen ñu duñ fi yàgg damay xeex ak ñoom wax na dëgg wax na dëgg Macky Sall wax na dëgg buñ deful ndànk day il est il est il est balèze en milliards te nekk ci opposition di xeex dafa yomb de laaj leen ko Ousmane Sonko dafa yomb te neex opposant moo dàq pouvoir rawatina opposant bu am ay milliers de milliards comme Macky Sall ak ñi Andal àndal ay milliards lañ yore seen opposition day neex te day gaaw dañ leen wàcc léegi man samay wax jalu muus la waxantuuma làmbatuuma Diomaye ak Sonko li ñu nekkee bu ñu soppeekiwul jël seen nit teg xeex dàq gaay yu Macky Sall yi rëdd mu leer tracé wax ak Sénégalais yi jël li ñu war a jël dogali dox Macky day yàq seen pouvoir du ñu dem fenn budget sax du am ren budget bi kenn du ko vote man làmbatuwuma li may wax xam naa ko c'est quand même humiliable c'est quand même euh, dégg man humiliable sax c'est c'est quand même ubiesque on ne comprend pas yii ñi may déglu ak man ni wax ñun ñëpp ñoo yem li xew kenn xamul lu mu doon lii est-ce que jàmb la l'heure est extrêmement grave les institutions sont bloquées l'Assemblée nationale se braque l'exécutif est bloqué mënuñu jël benn réforme mënuñu def dara on est là à prendre des mesures de cosmétique jomaay ba mu faloo ba léegi deful fi dara loo xam ne mën naa changer fondamentalement ce pays là te loolu moo taxoon ñuy voté léegi Macky nag loolu la xam moo tax mu bëgg a bloquer assemblée nationale bi ba nga xam ne réforme majeure du jàll comme ça askan wi découragé mu génne milliard am ne leen waxoon naa leen ko xamuñu dara mënuñu dara dañuy nekk ci mbedd mi di yuuxu ay terroriste lañu amuñu expérience xamuñu xam-xam je vous l'avais dit sénégalais yi commencé regretter commencé rëccu mag yéen a ànd il faut ñuy waxante dëgg ba ma koy wax contre Macky Sall ñu bari dañ doon tàccu mais du woon contre Macky Sall mais dama ko doon def pour suñu intérêt pour le Sénégal bi Macky Sall bëggoon yàq donc tey jii bu ñu ñëwee tamit fal ay nit yoo xam dañu am ci ñoom yaakaar mais xamuñu fu jëm bañ faloo ba léegi kenn déggu kenn gisu leen kenn xamul fu jëm

on est des poules mouillées parce que ñi vous vous rendez compte vous vous rendez compte téléphone whatsapp mais qu'est-ce que vous wax pourquoi il faut un ko il faut que am ko wax oui ba kañ dafa neexul ci xol Sall ki ay Amadou Mamdiob, Diop ay Abdou Mbow ñooñu nga xamna sama dal bi lan tane ay sagaru nit quoi mu mel ne mi amul président de la république amul premier ministre mu melni ne mi amul ay patriote quoi ay Abdou mbaw ñoo ay Amadou mam Diop Macky Sall nekk fa mu di leen manipuler mu melni mi amul président de la république amul gouvernement amul premier ministre mais c'est pas possible c'est écœurant c'est décevant c'est énervant man sama xol dafa tàng ci lii ay sagam nit ñoo ñuy fonto ak li réew mi di xaar ci ñun ak ni ñu sonnee ci réew mi ak ambition yu ngand yi ñu am ci mi potentialité yi fi ambition bi fi nekk xeex bi ñu xeex lépp ñu ñëw ba accès ci pouvoir bi mu mel na ñun dañoo takk suñu ay loxo wala marabouté wala ñun qu'est-ce qui c'est qu'est-ce qui la qu'est-ce qui la y a un problème c'est pas possible quand même il faut qu'on nañ ñu wax li xew lan moo xew Nous ñu wax li xew su dafa am lu xew ñu wax ñu su dara xewul nañu def def mais ñun bi opposition bi lañ lañ conséquent ak ñun ñi opposition mais on était mille fois plus performant plus conséquent plus redoutable Nous, li doon opposition bi nous ko sax pouvoir mais pourquoi qu'est-ce qui se passe on est dans l'inertie on est dans l'absence totale dans le calme plat personne ne sait où on va qu'est-ce qu'on veut mais bien que opposition bi daan wax ñun di génn di wax ñu xam fu jëm ñu yëkkatandoo tegandoo te là vous avez tous les pouvoirs qui xamul fu jëm ñu kenn du ko wax. kon fi may crise bi moom am assemblée nationale bloqué nañ ko bu fa premier ministre demee def déclaration politique générale bu paré gouvernement bi day daanu ma wax leen ko tay Ousmane Sonko bu demee def déclaration politique générale bu paré bu demandé le vote de confiance gouvernement bi day daanu parce que ñom paré nañ ben bokk yaakaar taxawu Sénégal une partie de yewi Askan ñom pire ak ñoom ñëpp ak les les les non inscrits ñom ñëpp and nañu waxtaan nañ ba taxaw xaar mu ñew def waxtaanam ba paré demander la le vote de confiance gars yi jóg voté pour daaneel gouvernement bi gouvernement bi day daanu man maa leen ko wax parce que waa PUR àndatuñoo ñun waa PDS yi voté nañu ak ñun mais comme kenn tudd leen ci lenn mer nañu ña nga taxaw Karim Wade ngi def ay postes yi di accéléré di wax jomaay lu mu war a def ak yooyu dafa mer. waa kër Macky Sall yi ñoom du ma leen wax seeni wax wa kër Khalifa Sall yi xam ngeen li ñu jot ak ñom ñom ñepp nak ña nga ànd ñoom am fu la de. ñoom ñooñu opposition bi am nañu ful la ña nga ànd di nasaka nokki taxaw ñun kay ñun ñoo xamul fu ñu jëm ñun waaye ñoom ña nga taxaw di xaar yoon seen i yet ci assemblée ba bu ñu fay dem di pare des DPG ñu def seen vote de sanction wàcce gouvernement bi waaw ñoom ñoom ñoom dañuy yàq ñun dañoo bëgg a defar te mënuñoo ànd pour defar di leen sóoraale ñoom dañuy yàq te ñoom ñoom sóoraale wuñu ñoom dañuy yàq te sóoraale wuñu ci yàq gi ñun dañoo bëgga defar di sóoraale ay yàqkat نيغا تي اسامبلي با كين كو كي نيك يور سا ياتو كيل تاخاو دي خال بريزان خا تاخاو دي خال بريميس بو نيو لول ماي بن باسكو غيس نان ماك جوم بريزان جوماي دا فورون جيل دكري داك عبد الله داودو جالو داك امينتا مبيغ نجاي واتي دي جي ني في نيك نيب سا بن خريط دفنا ما مي سين سا غاي دا ييخ منكو لوتاخ منما لا mun ne ma 2012 mu ne ma ah mu ne ma bi Macky Sall faloo ma ne ko ah mu ne ma da doon signé ay décret dafa signé ay décret signé ay décret dàq gars yi Abdoulaye Wade signé signé ba yàgg loxo bi loxo bi loxo bi nagam loxo bi dégg leen baax li ma leen wax de deux semaines Macky Sall signé décret dàq dàq dàq dàq dàq ba yàgg loxo bi signé nagam xam nga xam ngeen nuñ def Macky dafa woo ay nitam ne leen utal leen ma cachet cachet boo xam ne sama signature moo ci nekk ndax signature yi sama loxo yi dafa nagam ci signature pour dàq dàq gu métti gi dañ ko mujj utal cachet boo xam ne signature Macky Sall moo nekk ci cachet bi nga xam ne day teg paquetu paquetu décret yi paquet bi pour dàq dàq gaayam laa paquet yi tel tel tel tel tel léegi dootul signé cachet lañ koy da koy teg fee rek dangay defal defar décret yëpp cachet lañ ci dóor comme signature am tig tig ndax dàq gu metti ma ne ko du ma jaaxal Macky ko am fula ci boppam bandi la wuyu la bëggul réew mi kat la waaye nag ku mën a xeex na ku am fula maanaam li muy bëgg moom moom xoolu ci moom li bëgg da koy def man j'aime les gens qui xam nga ne dàq ni dong ci ay décret nga ut cachet boo xam ne pour dàq la tak tak tak tak ndax mu gaaw ñun ñu nekk fii ñu mel ne fal wuñu mu mel ne Macky jógu fi saay la mais caay caayam gi ci fulla la koy doxal boo ànd ak moom dalay dalay aar dalay ngemb dalay assumer boo reyee nit dalay défendre koo saaga bu ñëw dalay Macky da Macky Macky day aar ay nitam Macky du daw ay nitam Macky du dàq ay nitam Macky du tuutal ay nitam képp kuy xëy di ko jàppale loo mën a def ci moom nga bokk dalay aar côté boobu moom dama ko cee naw Macky amul complex naan wéy diw kër kër kii ci man la bokk ki bokku ci man Macky du genre boobu képp ku koy jàppale noo mënti man dalay ngeem boole la ci njabootam ndax saay-saay la mais nag loolu valeur la ci moom nit day assumer ñi politique faut assumer soo ko deful rek gars yi jaar ci sa kaw nappaaje la dox seen dox ñoom dañuy politique ay politiciens naka ca assemblée ba di nas ak a nocc di réunion dugg a génn daal Daouda jàll fii am Aminata Mbengue njaay fee ña ngay nas seen yi nas opposition bi yëpp ñu ngi nas taxaw pour xeex ak ñun te wax nañ dëgg wax nañ dëgg ah ñoom dañoo war a organiser wu pour xeex ak ñun ay opposants lañ loolu mooy seen rôle duma leen ci yedd kon Oman ñoom benn problème ndax demb dama nekkon di opposé di len xex fama nekkon demb légui léegi ñoom ñoo fa nekk ñoom fa ñu nekkon demb man ma fa nekk kon ñoom dañ maa wara xex comme dañ ma wara xex may dama wara xex pour tok fi ma tok mais ñoom li ñu nekk ci seen yoon lañu nekk lu ñu mën a bloqué dinañ ko bloqué lu ñu mën a yàq dinañ ko yàq pour que askan wi génn ci ñun wax nañ dëgg ñun ñoo war a taxaw am suñu fulla ak suñu fayda xam li ñu fi indi xam ni ñu fi ñëwé xam ñi ànd ak ñun xam ni ñu war responsabiliser xam dogal li ñu wara jël xam xex bi ñu wara xex ak ñom pour man fé tok dafa réew mi buñ ko deful dañuy folli man maa ko wax. voilà yaaka askanu Sénégal dañ fi nekk and ak ni yéen nit ñi éternellement sénégalais yi andu ñoo kenn seen bopp lañu andal dañ lay fal parce que dañoo am lu ñu yaakaar ci yow boo doxalee tuuti gis ñu ko ñu balaf dem fal keneen Sénégal yi ñoo kenn bëgguñu kenn seen bopp lañ bëgg te wax lañ dëgg dañuy da nga leen di dig ñu gëm la fal la nga doxal ñu xool doxaloo ko ñu balafa na yak bu naqar yi fal keneen Sénégal yi joxuñu seen bopp kenn dama leen koy wax mu leer joxuñu kenn seen bopp seen bopp lañ bëgg ak ku leen di dig lu muy def soo ko deful ñu balaf yéen ñi may woo ñëpp nag ak i message mënu ma leen tontu yéen ñëpp dama koy live ngeen dégg ko dagg-daggee leen ko ngeen partagé ko sama tontu mooy lii li ngeen may laaj lu xew lu tax ñu dàq kii lu tax mënuñu wàcce kee lii lii lu tax kër kër kër li ngeen may laaj yëpp tontu baa ngi nii tontu bi mooy ñi ñu gital Ousmane Sonko Diomaye ñoom ñoo war a wax nit ñi fu ñu jëm ñoom ñoo war a jël dogal yi ñoo war a dàqaate ñoo war a xeex ak ñii ñoo war a tas assemblée bi parce que assemblée bi dégg ñu ciy wax naan wéy le lañ ko war tas ay ñoom gay Gueye cuuna yoy nga xam ne seen àll wa mokkul jànguñu xamuñu dara ñenn ñi dañuy politique yo assemblée bi ñu fal ko le 31 juillet 2022 31 juillet bi ñu jëm 2024 lay am ñaari at lay am deux ans ñu ne wuy non deux ans bi le 12 septembre la à tax nous wax le 12 septembre nous ko teg wax naan le 12 septembre lay am deux ans fu ñu ko teg damay laaj ñu koy wax fu ko teg Babacar Gueye mi ko wax ko teg moom. parce que xamul ñu ñoom ñëpp dara l'Assemblée nationale a été élue le 31 juillet dès le 31 juillet après les résultats l'ensemble des députés qui, ont, qui sont devenus députés l'ont été à partir de cette date-là. La preuve, le 12 septembre bañ leen di fay seen émolument député députés. dañ à partir de quelle date à partir du 31 juillet député yep, la lañ fait ba fay mois d'août ba bañ leen fay rappel août ak septembre lañ leen boole fay parce qu'à partir du 1er août les député nuit, ils ont été élus dem leen été laaj député yi waaw nit naka lay été élus weer boo xam ne nekk gu ko député biñ la falee ci instant bi nga nekk député nekk député ci instant bi bokkul ak jël fonction wala boog ñu convoquer parce que du sax jël fonction les députés une fois que ñu fal leen par élection du ñu commencer dem ci assemblée bi tant que président de la république jëlul décret pour convoquer la session ordinaire de l'Assemblée nationale, la première session après l'élection, est convoquée par décret présidentiel. Constitution de roi. Quand Quand fallait le 31 juillet Macky Sall décret après convoquer la première session ordinaire de l'Assemblée nationale qui doit intervenir la première quinzaine du mois de septembre, du mois d'octobre, qui doit intervenir. Dans la première, qui, doit, intervenir en septembre, pourquoi nous allons convoquer l'Assemblée en session ordinaire à partir de la rentrée septembre Pourquoi Pourquoi le président a dit le de l'en convoquer Est-ce que vous savez parce que projet de loi organique relatif au budget, nous allons commencer la procédure sur concernant le vote du budget à partir de octobre. session ordinaire unique pour l'Assemblée nationale 15 octobre le 30 juin D'où le 30 juin le suba assemblée nationale session unique ordinaire commence commencer 15 octobre de l'année d'hier le 30 juin de l'année suivante session bi 15 octobre 2023 le 30 juin. 2024 sous la session bi di jeex moo assemblée bi ne tej nañu session bi jeex dañuy dem vacances ba septembre lundi ñuy après élection bi président de la république a jël décret convoqué la première session de l'assemblée nationale la session ordinaire pourquoi mo koy convoqué parce que le marathon budgétaire là, wara va commencer. projet de loi bi dafa wara donc avant projet de loi bi di ñëw pour euh, le, budget il faut que député y installé à multi ci constitution bi faire nous ñu installation des députés À nous faire nous ñu dañuy installer député l'installation des députés ne signifie pas la prise de fonction député bi jour biñ ko falé la am immunité la am avantage la am lépp keen mënatu ko poursuivre jour biñ ko falé la ko nek la nek député d'office parce que askan wee ko fal la am légitimité la nek député du peuple léegi nag mënut a dem assemblée parce que il faut que ñu convoquer assemblée mëno fa dugg du marché du boutique pour nga dugg fa il faut que am convocation convocation bobu première bi président de la république moko jël par décret il convoque

2022 session bi 30 juin la tëj ñu def élection 31 juillet un mois après l'assemblée assemblée bi tëjee la fal député yu bees yi assemblée bi ubbikoogul pour mu ubbeeku après élection yi Macky Sall moo jël décret convoqué la session ordinaire ci ba ñu session ordinaire mooy ubbi bunt bi nag de la président assemblée bi soo convoqué député yu nous yi ñuy soog première fois ñu installé leen jox leen seen i wax présenté kenn ku lolu affaire interne assemblée la jotewul dara ak élection député bi donc la date effective la date officielle la date légale de prise de fonction des députés c'est le 31 juillet date bi nga xamné ci lañ leen fal parce que askan wi leen fal mais les ma leen wax fi télé yaa wax kenn ku nekk di mbell mbell mbell mbell mais duñ dem ci constitution bi duñu xol le code électoral duñu def des lectures croisées des dispositions ñu di parce que politique le 12 septembre la li bëgg mooy possibilité dissolution assemblée bi le 12 septembre buñ ko poussé conséquences lay am le 12 septembre suñu ko ñoom ñuy kaas ko politique leen ci le 12 septembre le 12 septembre ngay dissoudre assemblée le 12 septembre supposons à minuit ñom seen fenn bu fekkante ne loolu la Bassirou Diomaye fay gëm ba nar ko def su leen toppee ci loolu dañuy am problème parce que le 12 septembre bu fekkante ne ci lañ mën a tas assemblée bi soo tasee assemblée bi décret bi tas assemblée bi décret boobu mooy convoquer les élections législatives anticipées ci même décret bi mooy tas assemblée bi mooy convoquer le corps électoral pour dem élection Élections yooyu il faut que vous ko entre deux mois à trois mois tout en sachant que il faut un parrainage minimum deux mois code électorale. donc si vous assemblée le 12 septembre le 12 octobre le 12 novembre parrainage deux mois vous avez a une 12 novembre vous avez a envisager wax élection Bon waxe ban nga dem élection il faut nga def trois semaines de campagne 12 septembre il yoko ci trois semaines day nek presque trois mois y a fin novembre ngay dem élection législative nga dem élection législative fin novembre fal député yi war len convoquer alors que la loi organique la loi de finances dit qu'il faut déposer la loi de finances au plus tard deux mois avant la fin de l'année c'est-à-dire qu'il faut que la loi de finances soit au plus tard deux à trois mois devant le bureau de l'Assemblée nationale. Ça dit qu'au mois d'octobre, vous avez de bon novembre mon assemblée loi de finances, budget bi il va nous rester un mois voire 15 jours avant la fin de l'année on n'aura pas de budget ñoom ci yoy la dox mais yeen xam leen loolu yéen a ngi tàcc di wax rek way anniversaire Sonko ñu nekk ci crise bu profonde ngeen di wax ma gis ay lappataat way le 15 juillet anniversaire pro kër ko ngeen toog ci réseau yi ma ne mais ñi ils n'ont rien compris ñi xam ñi enjeu réew mi xamuñu ko pétrole bi gaz bi agriculture bi jëmaa di woote industrialisation bi ñu nekk ci réseau yi di mbell mbelli comme ay weñeke ay ay yamb naan ay anniversaire Sonko yeen mais lan moy anniversaire Ousmane Sonko yeen xam leen fu réew mi toll vous vous rendez compte ñu wax ay waxi anniversaire vous vous rendez compte Mais c'est ubiesque quand même. Non, mais c'est normal, les enjeux sont Les enjeux sont de taille. L'heure est grave. La crise, elle est profonde. Attention yeewu leen te ngeen déglu di déglu ñi xam ngeen de di déglu te bàyyi mbell mbell gi nekk réseau yi waye ko fecc ak seen yefu làppato yi arrêtez moi ça lii mooy enjeu yi on a une loi de finances à faire adopter on a une assemblée à renouveler on a un des deadlines 31 décembre loolu nag yéen xamu leen ko parce que ñuy bari ci yéen defuñu finance publique xamuñu li ñu li may wax xamuñu ko c'est normal ñoom ay xalamkat la ñoo ay fecckatu ay bongoman euh, way rek ay euh, anniversaire Ousmane Sonko bi yéen pour yéen yéen a ngi ci opposition bu léegi Ousmane Sonko nekkatul ci opposition toog këram di live ngeen déglu Ousmane Sonko c'est le chef de ko c'est le premier ministre du Sénégal la politique de la nation bi président de la République définir Ousmane Sonko mooy le chef d'orchestre nekkatul Sonko bi ngeen xamoon ay anniversaire ko ay mu sell meeg seen wax yi mais arrêtez Ousmane est dans la science. Ousmane est désormais dans la mise en œuvre. Ousmane est dans la technicité, dans l'intelligence. Ousmane est dans ça. L'on le sort le tir. Anniversaire. Vous vous rendez compte Il y a une crise profonde, Il faut d'ailleurs, il faut que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, prenne ses responsabilités. Vous savez, Macky Sall nekkoon le lu jeex na bu yàgg amne na ont fayda. Donc oui, le bandit le saay ça, la C'est bu fi nekkoon rek na ko bu yàgg la fin de la règle décret la jël réglé ko wax naa fi audio barke démb ngeen déglu ko yéen ñëpp ma ne su fekkente ne déclaration de politique générale mënut am parce que règlement intérieur bi dañ ko falsifier dop débat d'orientation budgétaire mënut am waxoon naa ko tey amul barke démb dem leen ngeen déglu sama audio bi circulé wax naa ko ne débat d'orientation budgétaire mënut a am parce que charte assemblée bi bu baaxul buñ ko falsifier mais assemblée bi dafa doon tëj dara mënu fa am du déclaration de police générale du débat d'orientation même budget bi su ñëwee fekk règlement intérieur bi baaxul budget bi wut a il faut que ñu réformer l'assemblée. bi wax naa en tout cas ñaari amagul dé décla DPG bi amul dop bi amul ñaari yëpp waxoon naa ko budget bi moo des budget bi octobre lay ñëw fii ba octobre bu Bassirou Diomaye Faye jëlul ay responsabilité am tas assemblée nationale bi budget du am man li may wax jàllu muus la làmbatuwuma géntuma li may wax science lay wax xam-xam laay wax finance publique laay wax ak yéen ak procédure ñoom ñi may waxal xam nañ li may wax làmbatuwuma de waxuma ci ay xalama ki ay anniversaire taluma yooyu man réew mi ma ñor li ñuy xaar pour tas assemblée bi constitution bi deux ans la wax deux ans yi 31 juillet lay mat mais am na crise y a un mois pour ñu mën ko selon la constitution mais du un mois boobu sax dama koy avant assemblée nationale bi où nous a un week-end Le décret bi koy président président de la république le président de la république devait consulter le conseil constitutionnel pour avis sur la crise cette situation conseil constitutionnel jox ko avis su vous avez mu consulter le président de l'Assemblée nationale mu jox le premier ministre conformément à la constitution nous tas assemblée bi fii T'es lundi ko il est la clé de voûte des institutions il doit veiller au bon fonctionnement de nos institutions oui article 52 comme 42 de la constitution la république faut am ay pouvoir bu ñu demee ba institution yi doxul arbitrer dans un sens comme dans un autre, nous ne comme le dissoudre le facteur bloquant nous organiser l'élection, c'est son rôle le président de la république na responsabilité. ay responsabilité, consulter les ma leen wax décret tas l'Assemblée bi convoquer une nouvelle élection qu'est-ce qu'il y a c'est quoi le problème c'est quoi le problème tontu leen ma man ne sais pas. yéen su ngeen xamee ngeen tontu ma lan moo xew bërk bii mu nga taxaw ci plateforme ne am nañu pétrole gannaaw suba léegi gas bi war a génn nga sol say tenue hélicoptère adduna bi yëpp dañuy ŋànk nga dem Paris Sénégal adduna yëpp di la rang adduna bi yëpp di xaar senegal ñu ne saye léegi dañuy liggéey dañu am xaalis senegal dañu koy yëkkati Sénégal adduna bi yëpp di xaar am ñoo xam ne ñoom dañoo bëgg a dañuy bëgg a saboté daal maanaam duñu liggéey daal ñu bàyyi leen ñoom ñu ñuy kàlle kàlle ay Abdou Mbow ak ay Amary Mame Diop ak ay ñu toog ci télé yi rajo yi bëgg continuer la campagne électorale nekk ci ay campagne kii ci ay am mag yi ay benn boo ko yaakaar kii ay tulli maraja xëkk rëkk mu mel ne réew mi changement amul quoi mel ne réew mi amul ay kilifa ñu bàyyi noonu quoi ku nekk di wax ñuy xëy suba ba ngoon di wax te ñu ne am nañu pétrole am nañu gaz dañu war a dem bay taw baa ngi taw agriculture bi industrialisation bi autosuffisance souveraineté alimentaire bi lépp ñu nekk ci ay rhétorique wax rek wax ju neex waaye acte acte bu ñuy jëmale foofu amu fi Ken Khamun. pourquoi personne ne peut répondre il y a un problème sérieux il y a un problème sérieux celui qui n'est pas d'accord il n'a qu'à donné ses raisons il y a un problème sérieux on pose des questions on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe kees lan moo ñu teree tas assemblée bi lan lan lan wax leen ma ko assemblée bi lan moo tax mënuñu ko tas weekend bi assemblée bi mais li ñu def tey mais c'est grave parce que président assemblée bi Macky Sall moo ko fa teg muy bloqué assemblée bi di def lu ko neex mu mel ne réew mi amul président mu mel ne réew mi amul président fan la Macky Sall dugg ak ñoom qu'est-ce qu'il y a ñu bëgg dañ may wan naa ma wéy mais ñii est ce que waxuñu ma leen mën du ma ma mais nag seen laaj yi nga laaj c'est légitime parce que ñoom tontu leen waxuñoo yéen ñi ngi posé ay actes yoo xam ne jaaxal na leen c'est normal seen xel yi ñaaw mais man du ma wax lu ma leen doon xawma lu ñu waxante ak Macky Sall xawma xawma sax ndax waxante nañ Macky Sall wóoruma mais nag kenn ku ne am nga droit nga sa xel ñaaw boo gisee loo xam ne xamoo lu doon amoo ci tontu sa xel fu ne nga ko yóbbu c'est normal Oui, il faut respecter la loi. Moi, je suis profondément attaché au principe de la loi. Acte bu posé dans la république doit le le conforme à la loi Si vous est présent, bi dissoudre l'Assemblée sans fin juillet qui loi qui ko côté? ci constitution les dispositions de la Constitution, article 42, 52, de may le président de la République, en cas de crise, en cas de dysfonctionnement des institutions, que le président de la République prenne ses responsabilités. l'exécutif faut l'exécutif un programme débat d'orientation budgétaire déclaration de politique générale vote de la loi des finances c'est dans l'exécutif lolo, lolo, calendrier assemblée bi bloqué ko ne du ko problème d'institution là, président de la république am na ay levier pour pour régler ça constitution bi daf ko prépare daf prévoir su fekkee daf ciy jiixi jaax na demander avis au conseil constitutionnel ñu wax ko li ce qu'ils a def Ils xam nañ li may wax mais bàyyi noonu mu ne réew pas amul njiit non je suis pas d'accord. accord ñoom ñoo ko doon wax force doit rester à la loi ñoom ñi nekk tey di saboté ñoo ko doon wax démb bi ñu nekk pouvoir force va rester à la loi oui je suis parfaitement d'accord. accord mais ñoom bi ñu naan force reste à la loi booba ñoom une loi c'était pas de la loi ñom force reste xam nga euh, euh, euh, comment dire à hors la loi c'est une loi c'est hors la loi mais la force doit rester à la loi oui c'était des hors la loi ñoom ñi nek fii hors la loi yi nekk woon moo tax assemblée bi règlement bi tamit nek hors la loi xam nga ñom non dañu yëpp quoi man man non mais ñoom mériwu ma ah. parce que ñom au moins nëbbatuwuñu li def mi ngi na fànn ñom ay hors la loi dañu dañu dañoo tripatouiller tripatouiller ba tripatouiller le règlement intérieur def lu leen neex ñoom nëbbatuwuñu man noppi nag taxaw suñu ko bopp yi di colal quoi dañuy fonto mu mel ñun amuñu ay kilifa ay njir yu am fit ñu am fulla quoi mais ñun amuñu lool man loolu ma metti man loolu ma metti ay tappalekat ay dit ñoo xam ne sàcc ay njuuj njaaj ñu nekk ci bopp rew mi dañuy fondoo di kal kalé di bloqué assemblée bi ñu nekk fi di wax kër kër mu mel rew mi, son ko di jox ay ultimatum ba ci Bassirou Diomaye Faye kenn dégg ko mel ne réew président man j'exige la dissolution sans délai et immédiate de l'Assemblée nationale qui n'en est pas une, qui est là pour saboter, pour bloquer, pour empêcher l'exécutif de travailler et d'avancer. Les Sénégalais sont comme nous, nous ñu amuñu ñu mais avant sax ñu bay wax ay voté budget loi de finances 2023 mais si vous Faye avec Ousmane nous avons am programme bu ñu war a ay loi de finances rectificative sur la loi de finances initiale pour nous corriger. Nous corriger fait fay fekk budget bi ñuy exécuter Macky Sall ko fi amna lo loo japp nañ ne war nañ ko mën a continue ko ñom amna lo loo japp nañ ne baaxul dañ ko wala a jooyanti bobu soko soo def il faut que nga dem ci assemblée ba yóbbu ko fa ñu orienter le budget par une loi de finances rectificative loolu mën ta nek fi mu toll nii amuñu benn marge de manœuvre parce que ñoom bëgguñu budget 2024 bi ñu soppi dara moo tax ñu bloqué assemblée bi te Ousmane Sonko en tant que premier ministre am projet de loi amna projet de loi de loi bu mu dougal ci assemblée bi pour ñu corriger le budget réorienter les ressources ñom xam nañ ko loolu la saboter pour que gestion bi muy gérer avant fin d'année bi am efficience ak efficacité pour sénégalais yi mën a gis seen bopp ci loolu président premier ministre Ousmane Sonko amna programme bop dafa war dem assemblée ñom xam nañ ko motax ñu bloquer assemblée bi légui kon ñun at bi duñ fi def dara dañ koy perdre ci 5 ans yi avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Nous perte 9 mois qui sont 5 ans marge de manœuvre réforme 9 mois beaucoup de 5 ans c'est énorme ci ñu nous saboté 9 mois 9 mois d'année budgétaire Il y a réorienter les ressources et les dépenses pour mu gën a méngóog projet bi nga xam ne moom lañ jaay sénégalais yi bañ jox ñu 54 pour cent marge de manœuvre boobu lañ bëgg a xañ ñu toog di xoole damay yuuxu te ñi koy def heure bi ci kaso yi la leen wax na fekk kaso yi ñoom ñi nekk fi di wax ñëpp heure bi rëbës lañ waxoon rëbës lañ waxoon toog ñoom ñëpp ay sàcc lañ mais mais Sénégal du dëkk waay sàcc yi nek ci kaso yi tay ñoy tok duñu kàllakalee quoi parce que parce que Ousmane Sonko ak Diomaye ñi nga patte patt de gisu leen kenn déggu leen kenn jëm mais c'est incroyable <laughs> non mais je rêve ou quoi <laughs> c'est pas possible quand même bon je m'en arrête là je suis que je a wax ngeen xam xam li xew li bari xew xew na ñom fañu fété wax nañ ko li bëgg def def nañ ko tak nañ seen fit bloqué nañ assemblée bi premier ministre du dem ci assemblée la li ñom nañ ko comme sa bëgg la ko defal kon crise amna. premier ministre lim bëgg ko ko ñom nañ leen bloqué nañ kon assemblée bi ak exécutif bi parlement bi ak exécutif ñaari pouvoir ñu liggéey dafa bloqué wu loolu li am à partir d'aujourd'hui am su su yoon dafa le président de la république c'est sa responsabilité maintenant qui est engagée ndax day sétane li continuer wala ay ci parce que dafa prêter serment devant les hommes et devant Dieu de servir et de, de, respecter et de faire respecter scrupuleusement la loi fondamentale qui est la constitution la constitution moo ne ko bu jafe-jafe amee ci pouvoir yi ba am crise a jóg atte fexe ba institution yi di dox constitution moo wax 42 52 articles. dem leen ngeen xooli ko Moi, ci des Ousmane Sonko amatul lu muy wax ñoom bu opposition bi ñu di wax président de la république responsabilité moi, engagé wu en tant que chef de l'exécutif est de vous de nos institutions, le garant de la Constitution. Sur ce, je vous dis bon week-end, à très bientôt. Assalamu alaikum. Bon, il y a des gens qui demandent à intervenir. Bon, je ne vais pas prendre beaucoup de gens, je prends une ou deux personnes et puis... Je n'ai pas le cœur à... Ah, vous le dire hein. franchement, j'ai pas le cœur, mais bon. Alors, j'ai accepté quelqu'un, mais apparemment ça marche pas, je vais prendre quelqu'un d'autre. Euh, je sais pas. Oui Ça mouline. Oui, allez-y, papa Khalifa, vite fait. Bonjour. Oui, allô Bon. Il y a des gens qui demandent à rentrer, mais ils passent leur temps à jouer. Voilà, c'est à l'image du le gouvernement et à l'image des Sénégalais. Donc voilà, c'est exactement ça. C'est tout le temps comme ça. On est, est prêt à rien faire. Donc les gens, ils nous demandaient. Fait c'est ça, ils sont étourdis, ils sont pas organisés, ils sont pas méthodiques. C'est tout le temps comme ça. Bon, écoutez, bon, ça suffit. Bon, je vais m'arrêter là. Et puis, allez, à très bientôt. Ciao, parce que j'ai pas que ça à faire, moi. Voilà, c'est mieux, je l'arrête, comme ça on n'en parle plus.